retour sur le plateau de Yeewu Leen Sofia mi ñu àndal mooy beurre bi ci vitamine yu euh, bëri yi alors Ndeye Alfi euh, la defar na ñànkatangam ba koy ràcc. waaw je comprends pas pourquoi nga defar ñànkatang. waaw ma defar ñànkatang Pape Cheikh. parce que mm-hmm. comme niñ ko annoncé ci suba. Mm-hmm. tey dañ leen andil euh, poêlée de crevette poêlée de curry crevette coco. Mm-hmm. donc euh, ñu bëri accompagne lu ñu ko mën a accompagner donc tey ma tànn ñànkatang euh, ñànkatang waaw tey moom laa moom laa tàmb pour accompagner kii pour accompagnement bi pour accompagnement bi donc comme bi ñu xëyee ci suba li ma ko annoncé woon mhm. jël casserole bi def ci bër Sofia Pape Cheikh mhm. def ci ceeb bi mhm. donc yëngal ko ba ceeb bi xaw a mel ni luy briller donc ma ñulu ko ak ndox ma ko saaf ni nga saaf ceeb bi Pape Cheikh ko ak ndox bu saf xorom mhm. donc bi ceeb bi ñoree tamit ma tibbaat beneen kuddu beurre Sofia riche en vitamine A et E mhm. donc def ko ci donc moo lay jox brillance bi ngay gis si ñànkatang bi xam nga d'habitude ceeb da nga koy gis ñànkatang muy collé mhm. donc boo jëlee beurre Sofia bi nag bu ñànkatang bi paree ci tàngaay bi nga def ko ci dalay permettre euh, ceeb bi du collé ah day tax ñànkatang bi même bu fekkee ceeb bu am gom même bu fekkee ceeb bu am gom déggal loolu donc mu andi la ay vitamine ba pare euh, andi la xeetu baax baax yi mën nga ñam Pape Cheikh ci biir euh, <laughs> <laughs> ci biir ñànkatang bi. Mhm. sinon Pape am naa fi crevette. am naa fi ah, saf na. Mhm. am naa fi coriandre ak persil. Mhm. am naa fi citron vert. ñaari tomate farci yu ma daggat moom it teg nii. andi tam lait de coco. Ah. Euh, lait de coco Sofia bi nga xamante ni moom tam ay pulpe euh, coco bi la ñu jël Pape Cheikh. pressé ko maanaam wal ko. ba mu jox ñu lait de coco bi nga xam ne souvent dañ koy jaawale ak ndoxu coco mooy ndoxu coco bi ñuy naan mu nekk jus de coco bi.

deux jàpp trois minutes ci biir pool bi avant ñu ciy def suñu ay tomate farci donc bu ñu defee tomate farci ba pare ñu liggéey ko ak euh, lait ko ko Sofia bi ñuy gis ni donc moom laa koy ñu liggéey donc mën nañu jël tomate bi def ko directement ci biir pool bi mu nekk ay recettes yoo xamante ni c'est facile à préparer changer ci lu ñuy lekk tout le temps parce que en moins de moins de 30 minutes même pas 15 minutes nga togg ko parce que crevette soxlawul muy ñor lu bëri 2 minutes rek doy na donc suñu rosee tomate bi jël nag curry bi nga xamante ne mooy euh, épice bi ñuy euh, def ci biir mu parfumé ko jóge Inde Pape donc lii presque cuisine indienne lañ koy mën a woy parce que ñoom si ñoom la jóge et puis gis nga togg yu am épices yi dafay changer goût yi ñuy faral di am man barki démb lekk naa kër euh, kër Kani Gueye maa ngi koy nuyu bu baax Kani Gueye Papa Gueye xaar euh, supp boo xamante ni euh, d'habitude xet bi may xeeñ ci yeneen supp yi bokkul ak supp boobu ah, elle m'a dit que ay épices yu naar yi la ci def et xet bi dafay neex ah, c'est bien parfumé c'est bien parfumé donc mm. bii dañ ci def gingembre ah. def ci curry bi nga xamante ne Euh, Inde lay jóge Pape Cheikh ñoom dañ koy consommer donc curry dafa nekk épice boo xam ne soo ko xasee ba def ci lekk rek day jël appellation togg bi moo tax ñuy def ñuy wax euh, ah, curry crevette coco curry crevette donc temps bi ngay euh, waaw baax basi baal moo wax damaa bëri wax de <laughs> donc eh bi ak coriandre bi je hmm. tape ma brousse persil bi persil bi ak coriandre bi Pape Cheikh dañuy bàyyi dañuy bàyyi ba sauce bi pare mhm. maanaam dañ ko ciy def bu yëpp ñoree parce herbe aromatique yi en général waruñu di ko togg duñ ko war a consommer bu yëpp euh, ñoree ba pare ah, donc damay jël sama leedu koko Sophia Pape Cheikh hmm. ñu liggéey ko sama sama crevette. donc euh, idée idée yu nit ñi mën a utiliser ay lait de coco la parce que sa change un peu dina ah. changer goût yi ngay wax. effectivement dina changer goût yi ñuy lait est très riche en minéraux. ok donc dañ koy ñulug ni mhm. bàyyi ko muy bax baxi Pape Cheikh. ok le temps que tomates yi crevettes yi di ñor. Mhm. ma dagat sama euh, coriandre. pressé ci tuuti citron pour mu andi tuuti goût acidité. ok waaw le temps ngay yeggale. may àggali quoi waaw déjà euh, Pierre da Silva mi ñuy jaay tubaab na sa c'est sucre salé loo ci xam. bu pare rek mu ñam bu paree ñu yóbbu ko mu ñam bañ ko indee yeewu leen ba tey daal moom daf ñoo lakkal quoi ñam moo tax. sa ça c'est sucre ça c'est moo la wax sucre ah dèjà yow nga war a woor wooroo. waaw waaw. Pierre. day wooru gàlle bu jógee këram day tàggoo ñu dafa woor mais bu ñëwee pour réaliser yeewu leen bu ñu ndekkee mu ndekki bu ñu naanee kafe mu naan café bu ñu lekkee crevette mu lekk crevette fexeel ba lekk yàpp àjjuma rek di nga <laughs> di nga am problème allez juste vous rappeler tamit que ñu ngi àndandoo ak euh, Post One Post One nag euh, fi mu tollu tembee dañu bëgg ngeen gën a euh, profité ci li mu jagleel ay kiliyaanam fi mu toll tembe fu ngeen mën ti dem man ngeen fa fekk Post One fépp foo xam ne dañu fay yónnee wala ñu fay jot xaalis Post One a nga fa ba noppi itam moo gën a moins cher yi fi gën a moins cher ci wàllu yónnee wala jot xaalis chaque jour ma fàttali leen ko alors Poste One mi ñu àndal mu ngi leen di souhaiter une très bonne journée non seulement bureau de poste bu ngeen dem mën ngeen fa fekk Poste One waaye bu ngeen demee itam ci bërëb yooyu ma tudd léegi nga xam ne ñu ngi ci koñ bu ne bu ngeen nee euh, dama bëgg a yónnee xaalis mais Poste One laa ko bëgg a jaarale immédiatement dafay gaaw ba noppi euh, ñi ngeen di yónnee xaalis yi du ñu am euh, problème yi ñuy faral di am ak ñeneen ñi parce que souvent nga dem ñu yónnee la xaalis nga war ko récupérer nga dem mu am problème mu réseau donc ñu ngi leen di euh, poste one euh, pour euh, ngeen jot xaalis yi leen di yónnee. ñu jël leen tam ci téléphone bi ci 88 628 22 22 wala 88 628.